mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax ànd bi nga xam ni yéen a ngi koy ànd ak programme 5 TV euh, ma ñëwaat ak yéen ci beneen décortique bu série Karma tey nag mu yemook li nga xam ni mooy épisode 15 bi euh, ñu dooree ko ak séquence bu njëkk bi te mooy fi nga xam ni foofee la Chérif ak Mazib di xuloowee euh, ndax Mazib rek da koo nettali ni daa am lu jot a xew ci seen diggante moom ak Ami loolee nag Chérif rafetluwu ko benn yoon ndax jàpp na ni rek trahison la ci ki nga xam ni moo di Ndeye Marie Euh, tey it nag euh, Majib tàmbali na koo fen euh, ndax daa mel ni kii di Majib ami sax la gën a bëgg waaye nag diggante Majib ak Ndeye Marie jamono jii mën nañu ni rek dëgëratul ndax taa sooda di yaayu Ndeye Marie àndul ci sëy bi loolu sax moo tax ba taa Aïda di yaayu Majib xaw a am xel ñaar ci sëy bi ba tax rek mu wax Majib ne ko xoolal bu baax a baax fi nga xam ni foofee ngay teg sa tànk ndax sëy bu amee kenn ku ci d'accordul lekk sëy bi du mën a neex te loolu lu fréquent la jamono ji ci sunu société bi euh, ndax rek gis nañu ba tàyyi euh, doom bu dëgër bopp bañ a déggal ay waajuram euh, ba tax rek mu dugg ci sëy boo xam ni ànduñu si waaye bu paree souffrance rek lay dundee ndax rek du am kenn ku leen jàppale wala ku leen di taxawu ci seen sëy boobu ba tax rek li gën mooy balaa ngaa dugg ci sëy muy góor wala muy jigéen nga naxtaan ak say waajur ba ñu nangu d'accord ci nga ciy soog a dugg ndax loolu mooy nekk sa jàmm mooy nekk itam jamm ngir ñepp euh, ñu jall ci benen séquence euh, té moy fi Virginie ak sëram bi di Nathalie di waxtané euh, ndax Virginie nak da bëgg rek daal di anda ak Lucas dem voyage si nonu Nathalie xamal ko niko ñun ay chrétien lañu te suñu diiné may ñu rek ñuy dëkkali goor bo xamné du suñu jëkkeur mu melni ni phénomène bobu tamit lu fréquent la jamono ji ci xalé yi ndax fanaanal goor wala and ak mom week-end wala sax dëkkali ko doonatul dara si ñoo doom euh, si góor boo xam ne du sa jëkkër te moo ni de loolu suñu diine nanguwu ko waaye itam suñu culture euh, mosu koo nangu li ko waral nag bari na euh, mën naa nekk nag sunu waajur yi ñoo jëlatul seen temps yar xale yi teg ci nag bu ñu defee lu dul yoon nañu daal di leen di jubbanti mu mel ni nag taluñu dara lu dul warul ma koppar koppar nag naam am na solo bu baax a baax ci dundu doomu aadama waaye doom ju baax moo ko gën fuuf beneen bi nag mooy xale yi dañuy tubaab yi ak ñeneen ñi nga xamni bokku ñu ak ñom culture euh, ndax comme li ñuy wax rek fu ndox danta batay bo démé fekk fa ay tép tép euh, kon amna ci ay wajur yo xamni batay ñoo ngi yar seeni ay dom waye nak li ñuy gis ci mbedd mek internet bi ak télévision yi euh, tax na rek ba seen yar dal di leen di réer ndax li di tentation rek mo leen di duggu ba tax rek may ñaax sama mbokk xalé yi rawatina nak sama mbokk xalé yu jigéen yi ñu xol bu baax fi nga xamni fo foofee la ñuy teg suñu ay tànk euh, te it xool bu baax suñu doxalin euh, ndax rek ñu bañ a rusloo suñu waajur yi nga xam ni euh, dañoo sonnoon si ñun bu baax ngir rek bëgg ñun ñi ñu doon ay doom yu baax si noonu nag la ñuy jàllee ci Ndeye Marie ak May ak Ami Ndeye Marie nag xamal leen ni rek papaam da koo bëgg may kut ko kut majib ba tax rek Ami daal di affolé ba naan ko sax yow du yaa waxoon dangay xaar ba am master soog a sëy waaye May moom nouvelle bi da cee loolu nag Ndeye Marie xamal leen ni problème bi mooy yaayam moo nangoogul euh, loolu nag nekk soulagement ci ami euh, ndax moom bëggul benn yoon sëy boobu am raison yi nag waxoon nañu leen ko ci décortique épisode 14 bi ñu paase te mooy ami jàpp nañ rek Mazip baaxul waaye itam mbëggeelam ci moom moo tax bëggul diggante boobu daal di am euh, ba tax rek lépp lu mu mën rek ngir Ndeye mari ak Mazip bàyyante moo ngi koy def ba tax mu koy proposé sax ngir mu génn ak Abdoul Aziz amoon temps booy ngir rek mën a changer idée génne li nga xam ni euh, moo nekk ci xolam diggante may ak Lamine itam neexatul euh, ndax bi Lamine xamalee may euh, li papaam wax ci seen diggante ba tey daa Lamine may rek daa daal di mere Lamine ndax daa jàpp ni da koo xeet tey it bëgg-bëgg papaam la dal di teg ci seen kaw mbëggeel ba tax rek mu koy yuuxu si noonu la Lamine gisee boppam dal di dem foofu nag ñu jàngee fa ni rek nit dangay dal rawatina jigéen ndax olof Njaay sax wax na ko tey si ndox lañu ko séentu waaye si nit la gën a si nit la gën ndax rek Lamine jëloon na décision boppam ngir rek sëy ak may donte sax bu ko parent wam yi nanguwul jaraloon na ko mu génn kër ga ndax du sëy ak keneen ku dul moom waaye loolee lépp tey may yàq na ko ndax rek mayula la Lamine benn yoon fu mu waxee waaye loolu tey jural na ko regret ndax Lamine wan na ko ginnaaw Euh, si noonu sax euh, la demee si xale bu jigéen bi nga xam ni moo koy xelal si lu bari di xaritam bii di Lisa si la ko waxee nag ngir mu waxtaan ak Khadija euh, ngir mu xam rek moom est-ce que sëy bi bi ñu leen bëgg a ndax ànd na ci ndax mën naa nekk ni Khadija moomu itam bëggul sëy boobu su boobaa bu dee loolu la papaam dina génn ci dina génnee xelam ci seen diggante su ko defee nag digganteem ak may dina gën a yomb ñu jàll ci beneen séquence te mooy nag fii Ndeye Marie ak Majib di waxtaanee waaye bu ñu xoolee bu baax daa mel ni rek Ndeye eh, moom la sëy bi rek daal di jaral waaye Majib moom da cee tayal eh, ndax lu Ndeye wax rek mu daal di ciy xëpp kaani dem sax ba naan ko rek say parents eh, bu doon rek ñoom nga jiital ci sunu diggante doo dëkk ak man ci benn appartement fële ca France muy firndeel rek li ñuy wax ni góor kenn rek du ko yombalal sa bopp ndax boo ko defee bés bu ngeen amee problème mu fàttali la ko ba tax rek may soññaat bu baax a baax sama mbokk jigéen yi euh, si rekk ñu gën a téye seen bopp xam seen bopp xam ñooy kan fonk seen bopp euh, ndax dinañu si ñàkk ñaari yoon euh, benn bi mooy dina tax rek ki ngay bëgganteel dootula la respecté waaye itam ëllëg di nga ko rëccu Ndeye Marie nag loolu métti na ko ba tax rek muy jooy ay jooy yu métti di si waxtaan ak ami waaye li si gën a métti nag mooy moom Ndeye Marie daa bëgg Mazib torop ba tax rek mu am lu ko métti waaye Mazib moom euh, li yaayu Ndeye Marie àndul ci sëy bi moo ko metti ba tax mu koy wax ami si noonu Mazib xamal ko ni ko euh, moom yaayam rek la am lu mu bëgg rek lay def ndax moom rek euh, si lu ko neex rek la mas di nekk loolee nag lu neex ami la ndax rek day tax mu gën a xam ki nga xam ni mooy taa sooda ak li ko doomam jaral waaye comme ni ñu koy waxee saa su ne rek ami daa yaakaar ni rek Mazib lay nax waaye moom boppam lay mujjee sax di nax ndax lu mu gën a jege Mazib rek rek mbëggeelam ci moom di gën di yokku ami ak Mazip di waxtaanee nag si la doomu ana bi daal di ñëwee waaye comme li ñuy wax saa su ne rek ak si épisode yi passé aana mu ndaw moom bu gisee góor rek automatiquement da koy xoolee bëtu papa ndax affection papa bi nga xam ni manqué na ko si dundam loolee lay bëgg rattraper si ñoom waaye gis nañu itam ni Mazip bët bi mu ko xoolee day wane ni rek ni deret yëngu na ndax rek doom daa nekk loo xam nak eh, luy sax ci xol wajur la eh, te itam mboot bu suñu borom mu def la eh, ba tax rek sa bo sa gisee sa deret rek nga xam ko ñak ko xam rek da lay daldi affecter bu baax baax ami nak bëggul benn yoon relation am ci diggante ana bobu ak mazib ndax xam na ni rek ñom ñaar bu ñuy gisee lu bari du ko arrangé ndax rek bëggul benn yoon mazib am benn affection bi ci mom ndax da kay day ragal rek ñak ki nga xam ni moo ana comme ni nga xam ni la ko xal xalaatee woon ci ndorteelu série bi Euh, ñu jàll ci beneen séquence te mooy fii njabootu ku Bassir di papa yu Ami ak njabootu Majib euh, daje di waxtaan si noonu nag euh, bi Anita ñëwee di rakku Zane mu xàmmee kii di Majib ndax rek da koo gis da koo gisoon ak Ami te moom Anita daa njort ni rek Bassir day génn ak Ami ba tax rek mu wax Majib ni ko ni ma la gisee woon ak Ami wane na ni yéen ñaar da ngeen bëggante kon nag takku ko ndax moom li mu njortu rek nii ba tey ji ami moo tax euh, Bassirou amatul jot ci Jeanne euh, tax na rek muy encouragé Mazib ngir mu takk ami waaye loolu nag nekkul loo xam ni lu neex ami lu neex Mazib moo tax mu koy def waaye rek ngir defaraat sëyur magam euh, moo tax mu wax ko loolu ñu jeexal ak séquence bu mujj bi te mooy fi nga xam ni foofee la ami defee mise en scène ngir rek yàq diggante Mazib ak ndey mari ndax rek daa fexe ba ndey Marie génn ak Abdoul Aziz ba pare rekk mu woo Mazib ci restaurant bi ngir rek bu leen gisee xol fiiraange daal di koy jàpp waaye daa mel ni réussir na la mu bëggoon ndax Mazip euh, li mu gis rek bett na ko euh, mu mel ni nag ami tas diggante boobu moo ko gën a yitteel jamono ji euh, vengeance bi nga xam ni moom la doon moom la ni woon rek moom lay def ci famille kebe muy dëggal rek ni li ñuy wax si njëlbeen ba tey daa mel ni rek ami xolam moo koy diriger te loolu moo ngi feeñ bu baax a baax si ay jëfam kon mbokk internet yi fii laay yëm ak yéen tey ma jox leen dig dajee si beneen décortique beneen épisode bii di ñëw waaye laata boobu nag wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte nag bés suñu cloche de notification bi ngir ngeen mën a jot suñu yeneeni vidéo jërë ngeen jafe et à très bientôt